def élection yi fekk nañ ko fii yëpp mot na bi ñu ñëwee tamit fekk nañu ne euh, citoyens yi mobiliser nañu bu baax a baax a baax pour ñëw voter loolu nag ñu koy rafetlu di ñaan yàlla rek mu continuer ba ngoon incha allah suñu tëjee bureau de vote yi ñu wàññi xob yi yàlla def lu gën rëq-rëq nag biñ ci gis rek du lenn mooy ci biir bureau de vote yi suñu équipe yi dañu constaté nit yu bëre yoo xam ni ñi ngi jóge géejawaay ñenn ñi jógee Pikine ñëw di voté fii te lii élection wu gox la élection wu voisinage la élection wu dëkkandoo la ku fi dëkkul waru fi voté pour choisir maire parce que da ngay choisir maire ci gox bi nga dëkk. koy waxee en anglais so far so good. Ah. bon ñëw na troisième match la may na ma dugg léegi def naa nu ma war def ba pare bon def naa ko mais affaire bi dafa laborieux man soo préféré gis nga nañ ko gisee nii boo jëlee say papier ba pare boo ko jëlee. nii la waroon def di da ngay dugal commune bii nga dugal euh, nu mu tudd maire yi dégg nga comme ça bu jeex mais boo ñëwee nii defaat nii defaat nii defaat nii dafay dafay dafay dafay kii quoi dafay. dafay da ngay jàpp ne organisation bi daal mënoon naa gën a yëngu voilà mënoon nañu ko gën a kii. élection yi daal gisuma ci benn problème Baobab fii moom mosul du am problème parce que ñëpp benn lañu da ngay voté dem sa yoon vote nag xam nga c'est secret ah, ah, ku nekk da ngay dugg si biir voté ñibbi amul xuloo amul dara. wax dëgg yàlla amul benn problème. woote nañ ci jàmm ñibbi ci jàmm amul benn problème xale sax ñoo lay won affaire dafa bari jëfal nii mag mais defal nii woote nag c'est que dangay wooteel ki nga yaakaar mu gañe dem ñaan ki gën daal mu gañe wax dëgg yàlla mais amuñu benn problème woote bi amu ko amul benn problème dëgg yàlla dañoo bàyyi sax ranguñu sax troisième âge dëgg yàlla. la la ça se passe bien sincèrement mu ngi déroulé bu baax bon di ñaan rek jàmm am fii loolu la ñëpp di ñaan. mais sincèrement nii nii ni muy déroulé bu baax wax dëgg yàlla. waaw même ambiance bi rek comme d'habitude même ambiance bi mais tey la gën a xaw a sedd par rapport ak avant mais tey moom dafa gën a calme avant moom dafa bëri woon ay këning këning rek mais tey moom sincèrement calme na. Ah, ah effectivement j'en reviens parce que vous savez c'est quoi euh, lorsque Alpha Balla Gaye rentrait avec ses journalistes. les forces de l'ordre, ils devaient le laisser entrer avec le journaliste. C'est tout à fait normal, parce que vous, vous êtes des journalistes. C'est votre boulot. Si vous êtes là, mais à l'intérieur, comment vous allez faire Je suis tout d'accord avec Alpha, parce qu'il est habitant de Babab. Je ne mens pas. Mais quand même, les forces de l'ordre, ils devaient laisser les journalistes d'Alpha rentrer. C'est ça le problème. Maintenant, il euh, y a un truc qui vient de, qui vient de, de rentrer, euh, Zator. Il a voulu rentrer avec sa voiture, mais c'est pas normal. Bon, après, c'est un jour où centre yi ma def ak moom ak tout ça passe bien donc euh, amaguñ incident amul dara et je pense que du am incident parce que ñun ñëpp ñoo bokk la même famille ñu ngi mel mooy Sacré-Cœur donc on se connaît vous m'avez vu sans garde-corps sans en Casamance sa je suis venu seul parce que sa habitons dans la commune ñoo dëkk ñu ñëpp xamante ne xam nañ kii kii donc amul benn problème jàmm la ñuy woote moo tax même tout durant toute ma campagne je suis venu sans rapport ça c'est jàpp naa ñoo bokk dëkk si gox bi ñu ñëpp defar gox bi objectif bu ñu am mooy defar gox bi donc gisuma li tax mu war am incident donc aussi ça sera la même chose waaw léegi le vote va se dérouler normalement ñu ngi voté tranquillement ñu ngi élection apaisée kii gagné gagné te incha allah je gagnerai. centre bi kese nga def pour le moment j'ai fait que ce centre parce que c'est proche de notre siège moo tax ñu jël. yow fan ngay voté. Nafissatou Niang bureau 4. waaw vote bi daal ba pi bu ñu tàmbalee ci suba ba léegi euh, je pense que ci centre yëpp euh, indi lu ñu benn problème particulier bu ñu remonté euh, bii mooy quatrième centre bi ma nekk di def le tour après Ngalandou Diouf Casé tout petit ak école Nafissatou Niang et vraiment ci ci quatre yëpp amul benn incident majeur benn daal lañ ci noté en tout cas bi ma bi ma yëg au niveau de du lycée Ngalandou Diouf où am na nit bu ñu identifié boo xam ne da da doon jéem a jox nit ñi xaalis donc parce que euh, nit ñi alerte nañ euh, suivre nañ ko bu baax et finalement force loolu di génne nañ ko ci biir centre bi donc euh, vraiment les choses se déroulent en tout cas jusque là dans les règles de alors comme ni ñu leen ko baaxee woon di defal ci suba ba léegi instant bii nii ki ngeen doon dégg sànq ci kaddu gi moom mooy nekk Ndiaglakh bokk ci coalition gox yu bees voilà déglu nañ ko tataan nañ ay ay ay kaddoom mu nekk kaddu yu rafet nee na ci suba ba léegi def na ay tour des des des centres de vote. te li mu gis nag euh, dal na xelam li mu gis dal na xelam peut-être nag dem na ci benn centre de vote boo xamante nii moom mooy le centre de vote Ngalandou Diouf gis nañ fa benn nit boo nga xamante nii dafa yoroon xaalis di mel ne luy jënd ay ay ay vote mais nee nañ autorité euh, saisir nañ ko daa koy génnee à lool noonu wax dëgg neex yàlla moom xelam rafet na ci ci ci ci ci euh, élection yi. alors bonsoir chers internautes et amoureux de la chaine chaîne Tawfekh Production ki ngeen gis moom mooy euh, Bougane Gueye Dany moom mooy doog a ñëw nii ci centre bi nga xamante ni moom mooy école Mass Massaër Niane 1 ngir euh, saytu élection yi naka lay déroulé wu fii centre bi alors il est 14 heures et demie voilà Bougane Bougane monsieur Bougane Gueye dani moom ngeen di gis noonu muy doog a yegg si di saafonte également c'est avec ses partisans voilà je Bougane day Bougane Gueye moom ngeen di dégg noonu di gis noonu muy doog a yegg au centre de Mas Massayer ñan 1 de Mermoz Sacré-Cœur voilà ngi yegg si ngir saytu naka la ñuy amalee élection locale yi maanaam élection gox goxaani yi fii ci Mermoz Sacré-Cœur voilà. Non, pour xool bureau ñaan numéro moom ngeen gis noonu. alors voilà mu ngi noonu. di saafante ak si partisan. Euh, waaye nag euh, ñu ngi xamal ne que ni. voilà. mu ngi saafante noonu. ñu négandiku ko mu mën a wéyal li nga xamante ni moom mooy li ko fi indi muy visite yi. xool naka la ñu amalee élection yi. fii ci école Mance Massaër Nianan. je vous rappelle monsieur Bougane Gueye Dany moom ngeen gis ni mu egsi fii ci école Mass Massayer ñaan euh, bu Sacré Cœur bu mel moom Sacré Cœur voilà mi ngi saafonte ak ay naataangoom voilà euh, je vous rappelle nag moom nekkul na fii lay voté jusque dafay xool naka la amale amalee élection yi fii ci gox bi voilà mi ngi noonu di continuer di saafonte ak ay naataangoom Mhm. alors je vous rappelle que fii ci centre bi am na cinq listes yoo xamante ni ñoom ñooy euh, xëccoo lii di mairie bi euh, quatre candidats yi ñoom déjà voté nañu ba pare peut-être ki nga xamante ni moom moo ci des mooy Barthélémy Diaz de la coalition euh, Yewwi Askan Wi alors ki ngeen gis ni moom mooy Bougane Gueye alors ñu suivre ko mi ngi continuer di. jàngat euh, di xool naka la ñu amalee élection yi mu ngi saafonte également ak ses natango ses partisans alors loolu la alors comme ni ngeen ko gisee rek euh, mi ngi saafonte ay natangoom ba léegi je vous rappelle ñu ngi fii ci école Mass Massaër Niane 1 bu Sicap bu Mermoz Sacré-Cœur il est 14 heures exactement cinq minutes alors ñu wéyee di topp gi ñuy topp voilà monsieur Bougane Gueye ci visite bi nga xamante ni moom la ñëw def ci saytu naka naka la ñuy amale élection yi fii ñoo ngi ci devanture bureau numéro 4 voilà Bougane moom ngeen gis noonu mu ngi waxtaan ak ay naataango ba léegi. monsieur Bougane monsieur Bougane mi ngi continuer ay visitam di vérifier. di xool naka la ñuy amalee élection yi. voilà ñu ngi nii di génne excusez ñu ngi nii di génnee ci euh, bureau numéro cinq ànd ak ba léegi ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye Dany ci caytu gu mi caytu naka la ñuy amalee élection yi fii ci centre bi. voilà ñu ngi jugee bureau 5 jëm bureau ni hmm. voilà ñu ngi fii ci bureau 6 comme ni mu ko defee ci bureau 1 ba fii ah ngi vérifier di xool anam yi ñi nga xamante ni moom la ñuy amalee élection yi. Hmm. ba léegi monsieur Bougane Gueye mi ngi koy gis muy waxtaan ak ay naataangoom ay partisans am. même logique bi jugee na bureau 600 mi ngi bureau 7 ngir euh, wéyal li nga xamante ni moo ko fi indi muy. xool naka lañuy ñuy euh, doxalee élection yi fii ci centre de vote bu Mass Massaër Niane 1 bu Mermoz Sacré-Cœur alors moom ngi gis ni mu ngi amal ay voilà alors non ñu ngi jóge nañ sept ñu ngi huit nii ci bureau de vote numéro huit alors ba léegi monsieur Bougane moom ngeen di am ni ñu ngi saafonte ak ay naataangoom ba léegi alors alors ñu ko gisandoo mi ngi saytu ni ñuy amalee élection yi alors je vous signale que ñu ngi fii ci centre de vote école Mass Massayer Niane 1 bu Sacré-Cœur ñu fi amal élection gox-goxaat les les journalistes parce que bu ñu sañoon vraiment am ay taataan ay kàddoom mën koo jàllale ci ci ci ci suñu communauté jàllale ko ci sénégalais yi sénégalais yëpp jot ci mais finalement euh, voilà c'est c'est si voilà mi ngi noonu alors alors hmm, hmm. alors waaw waaw comme ni ma leen ko ni ma leen ko waxee sànq rek buggaan na def na visitam vérifié na ba xam ni ñu amalee élection yi dëppoo naaj mais nag deful point de presse loolu moom moog moo xamante ni moo nekk li nga xamante ni xaw naa triste la un peu les les les muy maanaam les taska euh, taskatu xibaar yi loolu moom moom fi jot euh, ñu ndégandiku xaar Barthélemy Diaz moom mu ñëw euh, woyal votem ndax fii nii muy centre de vote école Mass Massaër Niane un cinq candidats ñoom ñoo fi jongante ñoom ñooy xëccoo li nga xamante ni moom mooy mairie bi mais cadres yi ñëw nañ voté nañ ba pare instant bi nii mel na Barthélémy Diaz moom rek moom moo des ci vote yi ngeen euh, déglu ñu ñu ñu taataan leen li nga xamante ni moom moom moo fi. alors alors comme ni ngeen ko gisee noonu ah Bougane Gueye Dany la voilà def na visite ba pare mu ngi duggaat ci otom noonu ngir euh, dellu fi nga xamante ni moom mooy euh, centre de vote am fi nga xam ne moom la war a voté ji. alors mi ngi saafonte ak si militant maanaam seen i ay naataangoom je vous rappelle moom euh, euh, journaliste yi ñi ngi doon mi ngi doon ñi ngi doon xaar ci moom benn point de presse mais finalement euh, mujjeewu ko mu mujjeewu koo def parce que voilà dafa ne dafa war a dem voté ji alors euh, restez stock scotché hein restez scotché Tawfekh Production ñu mën leen a jàllaleel voilà élection yi fii nii lépp loo xamante ni moom moo fi moo fi xew fii ci centre de vote école Mance Massaër Niane 1 mel moo Sacré-Cœur alors ba léegi monsieur bugaan moom ngay gis noonu mu ngi préparer di ngir dellu ci bureau de centre de vote am voilà ñu négandiku ki nga xamante ni moom mooy Barthélémy Diaz euh, fii nag cinq cinq cinq listes ñooy xëccoo mairie bi cinq listes. mu ngi doog a yegg si nii Barthélémy Diaz alors alors en français je dirais que celui que vous voyez venir là si disait tantôt que Barthélémy Diaz vient de de rentrer, de, de rentrer dans ça. Alors, alors alors Barthélémy Diaz moom ngeen di gis noonu donc yegg si fii nga xamante ni moom mooy son centre de de de vote je vous signale qu'il est presque 15 heures alors. Hmm. Barthélémy Diaz ñëw na pour euh, accomplir son devoir en tant que citoyen mais aussi en tan que euh, leader politique euh, je vous rappelle moom euh, candidat la ci élection yi alors moom ngeen di gis noonu Barthélémy Diaz dugg si na fii nga xamante ni moom mooy salle bi xam ne fi lay voté voilà moom ngay gis noonu mu habillé tout en blanc. alors at li mu ngi noonu alors mu ngi jël noonu bulletin yi tëm na euh, <laughs> voilà euh, benn bokk yaakaar jëlu ko alors alors mu ngi euh, tànn ba léegi bulletin yi alors je vous rappelle encore que les votes ça se fait en deux étapes il a la commune ya y a également le département le département moom la jël nii moom lay euh, voilà yéen a ngi dégg euh, ambiance bi dafa mel ne euh, sunu taskatu xibaar yi may ñu ko daal benn yoon fu mu mën a defee accomplir son devoir alors alors je vous rappelle ñoo ngi fii à Mermoz Sacré-Cœur au centre de vote Mass Massayer Niane alors. il est 16h Barthélemy Diaz dugg na ci euh, fi nga xamante ni foofu la war a li muy voté alors ñu nekk ni tuuti mu génn. alors euh, il a déjà fait son choix jël na enveloppe bi mu ngi euh, mu ngi war a dem defi premier vote bi alors dugal na ko fi nga xamante ni moom mooy si urne 1. Euh, je voilà dugal na ko ci si urne bi alors ñu xaar ko mu def euh, li nga xam ne moom mooy deuxième euh, deuxième vote am deuxième alors mu des bu commune bi nga xam ne ni di dix listes ñoom ñoo koy compéti ñoom ñaa ñooy xëccoo ñoo koy xëccoo alors ba léegi. ba léegi gis ngeen euh, l'ambiance qui règne dans cette salle alors euh, les journalistes ñëpp ngi fii les organes de presse ñëpp euh, ngir euh, gunge ko alors je vous rappelle sànq dafa tëpp bulletin bi nga xamante ni moom mooy bu bokk yaakaar benn bokk yaakaar alors mi ngi choisir si mi ngi tànn li nga xam ne moom mooy bulletin yi. Euh, tànn na ko ba pare alors mi ngi revenir alors mi ngi dem euh, def li nga xamante ni moom mooy choix am ñu négandiku ko un instant mu pare alors alors ñu ngi fii je vous rappelle fii ci euh, centre de vote Mass Massaër ñaan on ñu négandiku ki nga xamante ni moom mooy Barthélémy Diaz mu def son choix Euh, def na son premier choix muy euh, le département maintenant bi nga xamante ni mooy commune bi moom moo si des moom la nekk di def euh, ñu nekkoon ko tuuti. voilà mu ngi noonu di génnaat ngir voilà jël na enveloppe bi dugal na ko ci ci urne bi alors voilà maintenant il émarger voilà. crois voilà mu ngi noonu l'essentiel est fait maintenant ñu ngi négandiku ko ngir mu génn mën a wéyal li nga xamante ne moom mooy euh, le point de presse alors alors voilà euh, il a fini donc euh, dañuy jege ji nga xamante ni merci euh, Barthélémy Diaz dugaan na ci otoom mu ngi noonu di di dem euh, on note une grande personne euh, dans les visages des voilà nekk nañ xaare wuñ il son devoir dafa arrêté kii dafa yabaat. caméraman. ñu ngi fii euh, ba tey fii ci euh, Mermoz Sacré-Cœur ci centre de vote euh, Mass Massayer Niane 1 fii nag fii la fi nga xamante ni moom mooy fii Barthélémy Dias voté. Alors, Barthélémy Diaz, Harnenko, voté n'a pas il a accompli son devoir de citoyen ainsi que son devoir euh, de leader. alors euh, bi ñu paree nag euh, ñi nga xamante ni ñoom mooy taskatu xibaar yi ñu ngi ko doon négandiku ci benn point de presse bi nga xamante ne waroon na ko amal mais bi mu génnee malheureusement dafa génn rek directement moom mu dugg ci otoom ci noonu la la demee. ñu mën a gis benn grande tristesse boo xamante ni voilà noté nañ ko si si si si si dans les visages des des des journalistes mu nekk loo xamante ni benn genre déception la vraiment mais quand même euh, c'est ainsi on n'y peut rien euh, voilà voilà loolu moom mooy moom lañ ci taataanagum ci ci xibaar xanaa ñu ñu négandiku euh, voilà résultat yi.